yàlla jël cré euh, tubaab yëpp yóbbu yóbbu ajana ah mais mën a nekk ndax yàlla nee na yu'azzibu man yashaa'u wa yaxfir yàlla maa baal ko ma neex may duma ko ma neex te nag li islam li fi yoon Seydina Muhammad bàyyi ko fi woon Sëñ Tuubaa bàyyi ko fi Alaaji Maalik bàyyi ko Seex Omar bàyyi ko fi maam la moom le moom le moom laay bàyyi ko ci ngor te ni dimbal nit ñi lépp yàqani ko te ku feebar nga dee te ku amul dépense nga jaaxle boo gisee ne ma yàlla jéggal su lenn suñ njaboot jigéen yëpp di di jaay seen bopp mais bëgguñu ko bëgguñu ko ndax lu ko waral dañoo sonn moo tax Omar ibnu Xattaab ci xilaafam xam nga ñoom bu def conseil des ba umra la wala aj ba aj conseil des ministres jamono Seydina Mohamed umra ba la aj ba aj la tous les gouverneurs bu ñu wootee ne cadre yow sa dëkk lu xam nga génn dossier teg am na ko xam ne fii ci saam la ba mu Omar ibnu Xattaab ne ko man de mu ne ko Omar ne ko ne ko yow koo atte mun ko non ñii tëj naa leen ñii dama la rey mun a waaw yow ñu nga tëj lu ñu def ma tëj nga tëj leen mun a waaw dañoo dañoo leen bañ a fay Omar na teg mu ne yow lu tax nga dagg ñu dox mu ne dañoo sàcc mu ne ko waaw Omar ko bit ci bi la joxoon lu tax xeetu luñ ci ba sàcc di lay déglu wax ji kon bëri na ko sàcc defe dañoo dagg loo xam non non dañuy xool lu tax mu sàcc mais bëri na nit ku xaru dañuy xool lan moo indi sababu mu xaru bëri na koo xam dafa jël alal loo jël. mais am na xoolal ay ra ak bi ay rawafit yoo xam ne bi manasik yu bëri yoo xam ne bii man ko ci calcul ba dina loola ndax doomu aadama bala nga koo defeere mm-hmm. sàcc na mais xaaral lu tax mu sàcc mais petit détail portable peut-être xale la manque na éducation islamique mm-hmm. mais mën nañ ko orienté ba dem mais yedd ko ba léeg nga dem ci tribunal dégg nga juge bi yedd nit ki ne ko su ma neexoon tëj kaso bi mais sa yaay ji moo tax tëju tëju ma la day dugg la sa baay ju màgget jee tax tëju ma la mais yaa ñàkk jom mais da lay yedd ba mu yow boo dee gor dootu ko defati mais foofu la ñu waroon toll fi Sénégal foofu ñu président créé ay sages sages yoo xam ne nag du ñu ay trian du ñu ay jublang dañu am diine ba par am ngor doon Sénégal comme moom tôt ou tard pare bi dafay génn ana sama baay ma nga yomal xam Touba ma suul ana sama yaay ma nga Touba ma suul kurul moom it dana man maa ci tegu te xaw ma nu may dee kon bu baax na amee nag monsieur le président mooy li ngay woote muy budget bi na ci peuple bi fi gis seen bopp bu fi junni pétrole amoon a gaz te Sénégal gisuñu ko dafa mel yàlla yàlla sax dañ naan yàlla moom yàlla yàlla ko yàlla fattaat mbaa bu yóbbu ko feneen ndax dañu iñaan kon de xanaa budget bi dañ ciy jiital euh, yokk lii di euh, délé bi nga xamante ne moom lañu may pour inscription ci euh, liste électorale yi ndax tey ni ki tey nii lay jeex te mënoon nañu ko wëyal ba lii di trois mois pour permettre aux jeunes à la jeunesse ñu daal di mën a dem bindu ji massivement parce que gis nañu engouement bi nga xamante ne am na ci ak jeunesse bi ni ñu taxawee pour mën a dem bindu ji te budget boobu ngay wax voté nañ ko budget bu jëm ci wàllu élection yi voté nañ ko pour euh, bu mucc ayib boo xamante ne mën na sax euh, yokk durée bi ba six mois. moo ko def ndax bindu bi ci trois mois ci ginnaaw la war doon boo ko def dem na ba cati na na ko yokkat te nag ci boo gis ni ni ñuy xë ni ñuy xëri dem di bindu ji. war war na war na ci war na ci def lecture. surtout nit ñi bu njëkk dañ daan bindu mais cette fois ci te nag ñi ku nekk xamoo la ci xolam nag mën naa la wan nangam ay xolam xamoo ko. ndax bëgg na lu moo xam bañ mu xam yàlla rek moo xam li ci xolam ak moom. Mhm. moo tax nit ki booy buur buy natt na natt ne fu ko yàlla yamale yamale nakam yàlla mooy rocc ruu gii sàkkatuma nguur afala tatafakkurun lu tax nit doo xalaat ndax lan ay bëgg-bëgg bànneex rek te da nga ko fi bàyyi nit ñi boo doo man yonent bi dafa wax benn baat non Seyd Haazimar radiyallahu taala anhu yàlla na yàlla ñu ko fayal ñu ko. ba mu déggee ne yonent bi nee na yaa ayyuhan naasu annahu qad nafasa mu ne fii ruqul qudusi mu ne billahi lan tamuuta nafsa xatta mu a tastawi fii risqiha yàlla ñu ko yàlla fayal eey nit ñi lay mbir tey mbir Seydi Xaas ma nee na yàlla nee na nit buy doomu aadama bu ñëw ban bu ñëw jamono dañ koy utal mbootu mbootu mi xont maa ngi ci biir dépense maa ngi ci biir soxla yaa ngi ci biir aajo ngi ci biir xont bi ñu utal ko lan ay fermeture xool fermeture yu bari am na boo xam ne poche la sarbet la boros la bii t-shirt la benn bi ay jasneer benn bi ay dàll la mu ne boo laalee bu ndaw bi di laaw ba ñëw laal mag gisatoo dara mu ne dee ñëw na ma ne lu may iñaanati est-ce que da wax ji kon ku fi du ku fi du ku nekk yàlla indi sa sa compte bi lay financé buy dee ngay jeex kon nag li may métti mooy jël sunu alal di ko sàcc di ko yóbbu ci ay Europe bàyyi nit ñi souffrir xale yi jàng dem ba am yaakaar seen yaakaar tas bu ñu jóge ci mbedd mënoo leen dara kon laa tatamannaw liqaa aduwin waaye dafa bu laqitumhum fasbutu yéen tamit moytu leen peuple bu jóg mais peuple nag bu leen am intention dal ci buur waaye nag buur la nga moom ak ak yàlla bu ko boo ko naan xañee jógal nga riposte la yoon ci almahamed kii mooy nouveauté kii mooy président kii mooy profet kii mooy imam kii mooy sang ba ci Medina léppam ci dëgg la ko teg Masamba. sëriñ bu mën a doon ci àdduna bi na nga jaamu yàlla na nga santaani jaamu yàlla léeg-léeg xale dee fii mu yóbbu ko armée la xale fees fa dell ma jël par ngeen baal ma àq ana sëriñam mun ni mi ngi nii mën na ko waxal mu dégg ñëpp dégg ndax mooy mën na ko soo waxee moom ngi tëdd fii bu jógee rek la ma wax ma def ko kon war ngeen bàyyi xel ki ko rey kan la loolu laa waaye wax loolu jaamu yàlla dalay nax ku la tere jaamu yàlla deena bu yàgg la bàyyam deena woon maamam deena kon bàyyi la xel ki ko rey la kooku ko rey nag kooku lu mu la sant def ko boo amee xel afala tatafakkuruna adduna baa ngi jeex yonte mi ne fii du ngeen wax dëgg ma taal adduna bi yàlla du taal adduna bi ay safara déedéet mooy lan lépp laa yàq tous les biens économie morale dama ko yàq nit ñi bañati sonde kon balaa boobu ñun nañu wax lan lañuy wax mooy dites la vérité dëgg du alal kenn yàlla ko ma tabaraka taala yàlla nga créé ci monde bi ci dëgg jël rasulaay muy nitu dëgg ne ko jiital naa la comme yonent bi faatu na lu yàgg yàgg yeneen siècle faatu yàgg yàgg Europe ak ana président France bu mu tudd de la. de da nga dégg ni ñu tuddati ko de ah ñu baax ñi dañ ko dégg sëñ Tuubaa déggati ñu mais ñu ngi leen di dégg bi ma ana ruuhiyan wala jismiyan allahu akbar dama ma seen màkkatal mu karam seen ba koor ñëw xaaru sawru fi Seydina Muhammad duggoon ba muy dem Madina ak abu Aboubacar ni Saddiq fa ko jaan ja jaan ja matt Aboubacar dem naa ba ci buntu paxu jaan ja man ko jaan bu dee seytaane nga naa xam daan matt ma maa ko yónnu barka la ilaha illallah xoolal yent bi sallallahu alayhi wa ma def noonu yooyu yëpp ay jaar-jaar la comme ça doomu aadama yi nakam ñooñu ñoo fi nekkoon yàgg na Senghor bu yàggut la génération yi sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhum mm-hmm. mais fii ci Sénégal la ñi fi des màgget nañu est-ce que mënat nañu dara waaw kon yow mi nekk président ak ki opposé su ngeen jàngoo ci ma ñi fi ñi fi nekkoon dara jaru ngi ñaaw et puis attention ku fi it fit ku fi indi fit na moo xam ku mën doon nag dafa attention dafa attention baax al fitnatu asadu min qatlin wa al fitnatu akbaru al fitnatu naimatu yontu yam nee na fitna métt gën a métti nga tër ni di ko waajare te deewut yàlla bi wax loo ne kon fitna màgg na nañ ko moytu rasulullah ne kon fitnaa ngi naa la ku ko yee yàlla ku ko yee la wax mhm. ku ko yee la may man kan la mhm. salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf jërëjëf yaa actualité la ñuy waxtaanee dialogue politique Aminata Touré et Ousmane Sonko non et informe le Yewwi en ordre dispersé Macky de la paire a-t-il réussi la dislocation